يا حي يا خيوم سل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام سل وسلم وتقبل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سيدنا محمد البصير النسير وعلى آله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين ربي اسرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولتكمل عقدي وعلمي وسهي وارفع اليوم كلها يا معيني سدد لساني نور جناني سف أماني وسد برائي mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd muy nuyoo lislaam te moo di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di jiital ci nuyoo bi xalifatul am li tariqati al muridiya sëriñ Muntaqa Mbakke di ko ñaanal fan wu gudd wa ànd ak wér ba mu àggale naal yi mu fi fekk ak naali boppam te ñu ànd ko ak moom noonu lañuy nuyoo Serigne seex Jëmb Fall mi fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ko ñaanal moom itam yàlla defal ko yéeneem ci ab liggéeyam waaye noonu lañuy ñuy mbooleem mbooleem xulafaaw yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi turux yépp bàyyiwuñu kenn di ñaanal ñépp jàmm mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seen émission pencum xasaayid mooy ñëw di leen fas yéene laabiire lenn ci mbindi Cheikh Ahmadou Bamba ki leen koy defal di seen mbokkum taalibe Serigne Diassa Ndiaye Raiya tey nag ñu fas yéene dikk ak yéen ci خسيدة بيغا خمنا موم لا سرين توبا بند موي خسيدة بو أم دولي لول يالا بارك يالكو لول مو أم نجاري نيول أدونا أك الاخرة تي سرين توبا موكو بند تي موم خمنا نم بندم دفا وخوني كرامتي خط يدي sama karaama mooy sama mbindum loxo kon lu mu bind rekk loola juboo na ca ak boroomam ndax moom bi isni rabbinaa rekk lay wax ci ndigalu sans boroom wa jaayil Moustapha ak daraje Seyduna Muhammad alayhi salaatu wassalaam lu muy def ci yooyu la koy defe tey nag ñu dikk ak yéen ci xasiida bii di jaawartu jaawartu siiw na lool ci murit yi jaawartu ci gàttal rek mën nañu wax ni mooy laissez-passer murit yi nga xamante ni sam borom dafa dogal ñi génn àdduna jëm alaaxira war a suñu borom tabaaraka wa taala Sëriñ Tuubaa bi mu taalifee xasida bi juboo na ceeg boroomam mu xamal ko ni ko xaside gile ku ko mokkal du tabbi mukk safara dafay daldi texe wax nañu sax ni am na benn naar bu ko ci masalaaj loolu ni ko sa taalibe yi dafa mel ni dañuy xér ndax wax nañu sa benn xasida boo xam ne wax nañu ne ku ko mokkal dem na mu ni ko ñoom sax day dañoo eggul ca na ma ko waxe waaye mooy wenn bayit ku ko ci man maanaam dem na wenn bayit ci jaawartu bile loolu moo waral ci jamonoy sëriñ Mor Mbay Siise yal na yàlla yokkal ko ay leeram ci bàmmeelam suñu borom tabaraka leeram yu rëy yu yaatu yooyule yal na ko dugal ci biir bàmmeelam ngir moom sowe na ba tey ay bokki taalibe yu fa jaar di ay néew wuy ji seen boroom ñu jëme leen Tuuba faw seeni bokk taxaw foofale ca njaareem kër sëñ Mor Mbaye Cissé mu jox leen laissez-passer boobule muy jaawartu kon jaawartu nag xam ngeen ni li tax sëriñ Touba radiyallahu anhu wax ci waxam yu rëy yooyule ba tey day jàngale rekk ni ak jub rekk mooy lépp jaamu yàlla it mooy lépp sellal mooy lépp jàpp naa sama yóbbal ci àddunaam jëm àjjana sama yóbbal moom sàmborom jox na ma ko fii ci àddunaam moom nag duma tàggoo moom yóbbal boobule ba aljana tey nag وانخاد للهوى ولصف الجنان نانا باتاي لولو ما سامبروم دفال تي القران بما ام تي يوبال بوبولي ومتال نما لما صب تيدنا يموتيا سلالنا سما خول خولي بنديف ييب سلالال ما خوليا loolu kon mooy ginnaaw bi ko sam borom wommatalee yooyu da caa boole nag xol yépp mu sellal ko waalaaniyal labraaru fi uxraaya wan xaadali bilanti an xiraaya mu ni nag suñu borom tabaraka wa taala tànneef ya nga xam ni ñoo di ay ab labraar méngoo nañu ak man ci àdduna ak alaaxira fii uxraaya nee na wan xaadali bilantian xiraaya nee na wommatal na ma maanaam ak bernde bernde goo xam ni du dakk mukk ci lu dul dakk وانخاذ لي بلنتي عن خرايا رافخني إلى الجنان جيم ولسوايا صحصح الرجيم سي أحمد بامبا نينا رافخني إلى الجنان جيم نيت ànd نيو ak man ba aljanna teyit nag صحصح siwaaya seytaane dàqeef na ko mu sori ma jëm ci keneen ku dul man ترسيان العين والفجار كون بدي العالمين جاري نانا سما باك مانام سما ديفانس بيغا خامني تي لاي ديفانسي شيطاني ديفانس بوبولي nga xamanteni moom ku doon xare tey li ngay yor ba boo ko yoree ku la jam bëgg a jam xeej wala jaasi moom nga koy défendre sa bopp mu dal ca ba du la laal kon nee na défense am anil ayni wal fujjaari nee na pakkam boobule ci seytaane ak kàccoor yi nee na kawnu badil alamina jaari nee na nekk gi nga xamante ni suñu boroom mi nga xam ni mooy kiy sos bindeef yi di sama dëkkaale moo ma jox kartan boobule ak doola joojule te yemut ak man foofu akramanil badiu bil kitaabi wasaanani an jalibin itaabi nee na akramanil badion aji sos ja bindeef ya teral na ma ci alquran akramanil badion bil kitaabi wasaanani an jaali bil itaabi te nag nee na ñoŋal na ma ci luy bijji yaraanga Cheikh Ahmadou Bamba lépp loo xam ne day bijji yaraanga ñoŋal na ma ca loola لم ينحني إلى دخول الجنة خير بشارات العلي سلمنا نينا لم ينحني إلى دخول الجنة نينا دوما جبلو بابا ما يتبع الجنة لدول مبيغم أجي kawe جنة خمينتني موي ni mooy خير بشارة العلي سلمنا lam yanxuni sajrun wala waidu wa umuri ilal jinaani iidu Seex Ahmadu Bamba nee na ab jajj wala tëkku duma jublu lam yanxuni sajrun wala waidu te yemu fi foofu de wa umuri ilal jinaani iidu nee na sama dund it la baal janna it nag boo ko xamul mooy tabaski mbaa korite lu mu ci manti doon feet jullit yi la bu ñëwee jullit day sañse di lekk lu neex di xeeñ lu neex kon iid bis bu nekk rek dundam gi nee na iid la defe naa ni loolu kummin Tuuba xam nga bu baax bayit woowu mooy lan bernde ba ca Tuuba ak teraanga ja ca Tuuba ak sell ga ak laab ga ak jaamu yàlla ga lépp ndeysaan boo demee rek dal di xam ni Touba dal dëgg-dëgg mooy barabu it dëgg axfaaliya sirral masuuna allahu xubban wala ilaha illa allahu neen suñu borom tabaraka wa taala nëbbal na ma mbuut yi nga xam ni da koo ñoŋal suñu borom tabaraka wa taala dafa am mbóot yoo xam ne da koo ñoŋal ñoŋal nag mooy loo xam ne du ku jóg rek dal di cay mën a egg dal di koy mën a xam mbóot yooyu nag suñu borom tabaraka wa taala da koo nëbbal Seex Ahmadu Bamba waaye loolu lépp nag li tax mu defal ko ko nee na xubban wala ilaha illa allahu ngir cofeel rek sopp gu suñu borom tabaraka wa taala sopp xaadimu rasul moo tax ya nga xamante ni kumpala ci ñëpp mu ñoŋal ko moom mu nëbbal ko ko nga xam ni moom rekk moo koy xam waaye yemu fa de hadaani allahu wa innahu albadia wa nee na yàlla jubal na ma moom mi nga xam ni mooy aji fent ja wa innahu albadia loo gis lu mu mën a doon ñu di ko naw suñu borom moo ko sos moo ko fent moo ko créé te it waxaadani law bi anwaayil badi nee na wommatal na ma ci xeeti fent ya mbooleem xeeti fent ya lu ñuy def lu nekk ba ñu di ko yéem sam borom wommatal na ma ko ba fu ma jëfe rek maanaam ñu ni Ahmad Bamba rek moo man lii براني الخالق من سواء waxaadani man laa yura charwaau nee na yàlla dindi na ma ci kudul moom képp koo xamante ni du suñu borom tabaraka wa taala siquma ak moom dara maanaam sama lépp yàlla laa ko jox yàlla mooy ki nga xamante ni moo ma deñal ci lépp loo xamante ni du moom waxaada nii man laa yura charwaahu te nag nee na wommatal na ma lu kenn mas la gis maanaam ndendam loo xam ne dañu koy tëkkaleek lenn sàmborom wommatal na ko Serigne Touba eh, ba nga xamante ni la mu ko wommatal moom xaadim rasul kenn du gis leneen lu mel noonu lee xaadim rasul radiallahu anhu teg ci ni kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu wa lillaahi bi sàkkantu nee na téereb yàlla ba nekkal na ma nekkal naa ko te dëkk naa ci moom ngir yàlla lahu wa lillaahi bi sàkkantu dëkk naa ci téereb suñu borom tabaaraka wa boobu te yàlla rekk a tax tusiani laqdaari wal mafaasidi salaamati min jalibil li faasidi nee na sama pakk maanaam ba tey sama défense bi may défensé ci nëx-nëx yi nga xam ni ak yàqu-yàqu ya al akdaar wal mafasidi yi ma koy défensé ba man du jëm ci man duma jige fenn salaamati min jalibin li faasidi nee na mooy sama mucc ci lépp luy bijji ak yàq suñu borom tabaraka wa taala non la baaxee xaadimu rasul ba lépp luy jëm ci ak yàq ak i nëx-nëx ak ay yàq-yàq du ko jige du ko laal du jëm ci moom nee na akramanillahu bi sikrihi wa ma lixtaarahu waliya xaadal aqwama nee na yàlla teral na ma ci barkeb alquran ak mbooleem lu mu tànn te wommatal na ma njub ga suñu borom tabaraka wa taala loolu la ma defal ba habiya allahu alkiram wa bi baqaa'iya nabiya sarra Seex Ahmadu Bamba radiyallahu anhu nee na yàlla leen na ma fan ca way tedd ya nga xam ne ay sang lañu foofa la dem di ma fa wane naan leen xool leen sama jàmbaar ji xool leen sama waajilee nee na wa bi bàqaay ya nabiya sarra nee na bégloo na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam des gi may des ci àdduna nee na feek suñu borom tabaraka wa taala mi ngi tànnal tàllal dën dënnam bi maanaam suñu borom tabaraka wa defal na ma des gi ma fi des ci jamono di bégloo yonent bi aleyhi salaatu wasalaam هبات ذي الجلال والإكرام لي خلدت مراقب الكرام Seex Ahmadu Bamba radiyallahu anhu nee na hibaatu sil jalaali wal ikraami muy may suñu borom yi tabaraka wa taala mayam yu màgg yooyu nga xamante ni moom mooy borom tedd nga ja moom suñu borom tabaraka wa taala nee na saxalal na ma xemmemteef yi way tedd ya lii xalladat muraqibal kiraami suñu borom saxalal na ma xemmemteef yi way tedd ya gaa yu tedd yépp li ñu xemmemoon bëgg ko sama borom jox na ma ko ba noppi saxal ko fi man nag ilayya xaada allahu maa lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini suñu borom tabaraka wa taala yàlla wommatal na ma lu mos nekk te du nekk faw ñeel ko ñu bind sam borom defal na ma loo xamante ni man dong man xaadim rasul maa ko am te keneen dootu ko am te kenn masu koo amit nag si ahmadu bamba radiallahu anhu teg ci wax ni lastu ashukku abadan fi kawni jaaral badi ajaban lil kawni nee na déet may am sikk faw ci samak nekk samak nekk daal duma ci sikk sakk mukk ni man jaaral ba di ajaban lil kaw nii dëkkaaleek yàlla suñu borom tabaaraka wa taala loolu nag kiimaan la ci bindeef yi ajaban kiimaan la lil kaw nii ci bindeef yi lu rëy a ngi noonu de ku dëkk ak suñu borom tabaaraka wa taala ah wax dëgg yàlla kiimaan foofu la mën a yem Seex Ahmad Bamba nag nee na moom loolu amu ci sikki sàkka inna alladi min al ilaahi xustu xaaba anil kawni wa fii fustu nee na li nga xam ne làq naa ko ci suñu borom tabaraka wa taala fàddu na bindeef yi nee na nag ca loola laa texee xaaba anil kawni wa fii fustu ca loola nag ca laa texee ndax loolu fàddu na kawnu bi yépp kenn mënta am li nga xamante ni moom laa làq ci suñu borom tabaraka wa taala dallani allahu bila taqarrurin wa umuri taqabbala yàlla tegtal na ma ci boppam ci ludul dañ mukk ba faw du ànd ko woru nag bila taqarrurin wa umuri taqabbala ci loo xamante ni ànd nag genn waru te nag loolu sam borom def tànnal ma ko tegtal ma ko ci loo xam ne benn waru amu ci nee na nag te nag sama dund itam noonu la ko sam borom nangoo nangu na sama dund wa umuri taqabbala xaabat xulaatiya ma alxusaadi mussamani xustu bila kasaadi samay noon ak sama way kañaane ñoom perte nañu Seex Ahmadu Bamba nee na noonu mbaa nga iñaane ma nee na perte nga de xam nga loolu rek jar na sopp Ahmadu Bamba xaadimu rasuul noonu ko dara jaru ko ñi ko iñaane itam nee na perte nañu kañ la perte nge boobu di am mu ne waxtu ba ma xamante ni làq naa sama njëg te du lamb la ma jaayanteeg suñu borom tabaaraka wa taala làq naa ko ba nappi te sama jaayante ak moom du lamb mukk Seex Ahmadu Bamba radiyallaahu mu tekki ni waxaani albaaxi bihi suboora tijaarati la dey lan yàlla mi aji deñ ja di aji des jayit nag ba faw fegal na ma alkande teyit nag tijaarati la dey lan la ma jaayante ak suñu borom tabaaraka wa fa moom du lamb bokki jullit yi bokki taalibe yi xasida gi dey eggut waaye waxtu wi moo ñu dab kon ñu teg suñu baaraam foofule ba dellusiwaat siwaat incha allah mën mottali li ci des eh, ci eh, kartanuk si Ahmadou Bamba ak ndimbalum suñu borom tabaraka wa taala eh, di siyaare bu baax ñi nga xamante ni ñoo ñu wër di ay kilifay diine kii ci suñu wet gën ñoo jigéen nag di sëriñ Asan Kan borom nasru di ko ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wér waaye noonu lañuy ñuy demee fële ca Baxdaad sëriñ xaadim gaydeel borom ndaam ci taxawaayam ci jeunesse bi akuk baaxam akuk am njariñam di ko ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wér waaye noonu lañuy ñuy demee njegéneen ci sëriñ mu niiru njegéen di ko ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wér moom itam dem daa daabaay Eh, siyaare njabootu Cheikh Man Ndiaye daabaay gi yëpp waaye di ci jiital suñu xarit suñu soppe suñu sëriñ sëriñ Jili Ndiaye waaye di siyaare bu baax sëriñ Cheikh Ndiaye moom sëriñ Fallou Ndiaye daabaay dikk nag fii ci télévision bi nga xam ne mooy Prestige TV di ñaanal bu baax suñu doom eh, Papa ya di ko ñaanal fan wu gudd waa ndag wér ba mu yeggalee yéeneem ci kees ca kanam noonu lañuy ñuy siyaaree ba tey nag euh, caméraman yi fi nekk euh, sëriñ Malick Laay sëñ Modou Aïcha sama jigéen bu baax bi nekk ci biir sekk di sama goro moom itam maa ngi koy siyaare bu baax di siyaare mbooleem ñi nekk ci télévision bii di Prestige TV waaye ñu ngi ñaanal nag sëriñ Saliou ture yàlla guddal fanam moom it may ko fanu gudd waan dëgg wér والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حي يا خيوم سل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام سل وسلم وتقبل